uballigu akrama tahiyatin ila shakhsiyatikum almuwaqara alaahi assalaamu aleykum wa rahmatullah oxtukum fillahi wa fi daawa soxna maam jaara géy tey sirlansir mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo te leen ñu jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi xalifatul am li tarixatil muridiya sëriñ muntaxa mbàkke bachir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye di ñaanal Serigne Cheikh Jëm Fall xalifa général kullu Baye Fall mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñuy am mbégte ak kontante ci dellusiwaat gi nga xam ni dellusiwaat nañu ko toogaat fii nga xam ni fi lañ toogoon daaw fas yéene soññantewaat comme ni nga xam ni noonu lañu soññante woon daaw loolu nag ñu koy sante suñu borom subhaanahu wa taala moom mi nga xam ni moom mooñu kartanal may ñu fekke ak tal ba ñu fekkewaat ko kenn mànkewul ñu ngi ko ciy sant bu baax a baax di am mbégte nag bu baax a baax ci teew gi nga xam ni fédération daayira Chifaa'u Suduuri teewaat na ko tey fii ci kër sëñ Muntaxa Mbàkke Basiir nga xam ni comme niñ ko daan defee ci at yi passé yépp noonu lañu ko defee waat tey kenn mànkiwul li ko dale ci Touba Dakar Thiès Kaolack Diourbel fépp foo xam ne si rek membre si faaw si duri nekk na fa tey teew si nga ci li nga xam ne moo di ziar général bi nga xam ne moom lañuy def at mu nekk ñu koy defee nag ci kanamu xalifa général Serigne Mountakha Mbacké Bachir ñuy sant di gërëm mbooloo mi nga xam ni ñoo nekk ci daayira bi yépp muy góor muy jigéen waaye tamit di leen sant ci jiital gi nga xam ne moom la ñu jiital teg ñu ci seen kanam te maguñu fi ëpp ñu fi xam-xam gënuñu leen waaye dañ koo def ngir am yaakaar boo xam ne am nañ ko ci ñun yàlla nañ suñu boroom gën di suturaal nag gën ñuy taxawu ba li nga xam ne moom lañ yaakaar ci ñun suñu boroom defal defal leen ko kon li nga xam ne noonu lañ ko bëggee ñuy soññee nag bu baax baax daayira bi yëpp muy góor muy jigéen ñi ngi soññu ñëpp waaye rawatina suñu mbokki soxna yi soññee bi nag ñu ngi ciy jiital suñu bopp ñu ngi jiital suñu bopp ci soññee bi ndax comme ni ñu ko daan defee at mu nekk dañuy ànd di liggéey ba at mi jeex liggéey bi nag nekk loo xam ni nekkatul lu ñuy présenté si Fass Dóor yi mbooloo mi àgg na foo xam ni nekkatul loo xam ne dañ koy présenté defe naa àdduna bi yépp gis nañ ko muy ay ndaw yoo xam ne dañoo ànd booloo di liggéeyal sëriñ Touba di ko liggéey ci li nga xam ne si moo di xasaa idi si Fass Dóori nag bay ci ab waar wu yaatoo yaatoo yaatu ndax bu ñu xoolee ci biir daayira bi dañoo dajale li nga xam ne ñoo di ay ndaw ñoo àndandoo ñoom ñëpp nekkoon ci Facebook bi tuddoon benn groupe Facebook boo xam ni dafa tuddoon waxtaane xaside yi kepp rekk dong ci noonu ci la jëwriñ sëriñ di caare xool ba xam ni lii kat lu war a yaatu la mu daldi koy yaatal ñu def ko ab daayra dale ko fii ci Touba teg ci Dakar teg ci Thiès kawlax Diourbel ba fi mu ne am nañ ay yeneen section yoo xam ni war nañ koo taxawal lu néew ci kanam mu nekk liggéey boo xam ne bu ama am solo la ndax liggéeyal sëriñ Touba mën na nekk ci côté bu nekk. waaye defe naa liggéeyal sëñ Tuubaa bi si gën a rëy mooy liggéeyal ko ci li nga xam ni moo di moo di xasidaam yi ndax sëriñ Tuubaa lépp lu mu bëgg wax na ko bind ko ci li nga xam ne mooy xasidaam yi bàyyil ñu ko fi daan na wax naan dénk naa leen ñett dénk naa leen sama jumaa ji dénk naa leen sama doom yi dénk naa leen sama xasaayid yi di wax ne sama jumaa ji képp koo xam ne feeñ nga ci dootoo nëbbooti ba faaw sama doom yi yar naa leen teg leen si yoon ba képp ku leen topp réeruñu te duñ la réeral daal ni sama xasaay yi nag ñooy samay tànk képp koo xam ni topp nga ab tànk te dëppoo bu yàggee di nga gis jëmm ja kon si Fass Duri dafa fas yéene topp tànk ki nga xam ni moo di maam borom Touba waaye jaare ko ci li nga xam ni moo di ay xasidaam ñu gis ni daayira bi nag mag ñi sax bariwu ci soo xoolee boo nee benn ñaar ñett dooni ñeent li ëpp ki daayira bi ay ndaw la loolu nag ak sant la waaye tamit ak jagle la na defe naa ni jamono ji toll na foo xam ni nekk ndaw di liggéeyal Serigne Touba nekk na loo xam ne lu jafe la fi na boo xoolee ñi nga xam ne suñuy moroom lañ suñu borom wala ñi ngi ci leneen loo xam ne bokkul ak di liggéeyal Serigne Touba wala nekk ci xesaa yi di durus ak yu demee noonu kon nag ñun bu ñu ko suñu borom defalee dañ ko ciy sant bu baax a baax a baax a baax te it di ci góor góorlu bu baax a baax ndax defe naa ni dara gënul neex nga nekk ndaw. ba pare di liggéeyal Serigne Touba di liggéeyal Serigne Touba ci xasaayid yi ci noonu nag liggéey bi dañ si ànd ak ay jëwrin yoo xam ne dañ ñuy teete di ñu won yoon bi bu baax a baax waaye chaque jour tamit ñu dañu jàngal lu jëm ci suñu diine ak di ñu jàngal loo xam ni xamoon nañ ko fàtte ko ak loo xam ne xamaguñ ko ñu leen di jëfal bu baax a baax ku ci mel ne moo di Thiaré sëñ Mor Ndiaye sama papa sëñ Mor Ndiaye fédéral euh, sëñ Mor Taale Ndiaye tey Seex ñi nga xam ne suñuy kilifa lañu ak Sëriñ Sidi Muxtaar Xuma Jaalibatul Maraaxib dañoo nekk suñuy kilifa ba pare nekk nekk ci daayira bi di ñu teyte ak di ñu teg ci li nga xam ni moo di yoon kon defe naa ni éducation mi ngi ci biir daayira bi ndaw ñi nga xam ne ñoo ci nekk képp koo xam ne teg nañ la bët rek dinañ xam ne yow mii bokkoo ak ki nga xam ni nekku ci moo tax dañuy faral di lancer benn appel boo xam ni dañuy bëgg ñëpp di ko dégg dañuy wax ni képp koo xam ne dangaa nekk ndaw te dara ñuru la lu dul xasaayid yi sëñ Touba yi dara ñuru la lu dul liggéeyal sëñ Touba ñu ngi lay woo ci suñu daayira bi nga xam ni moom mooy daayira Chifa Choudouri ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw ànd ak ñun liggéey bi ndax defe naa ni liggéeyal sëñ Touba moom fu ko waay defee rek baax na waaye ci li nga xam ne mooy xasida yi fi la ëppee solo ñuy soññ suñu bopp di soññi ñëpp ñu gën a farlu ñu gën a jàpp ñu gën a góorlu ñu xam ne lu baax di yomb ndax ku nekk xam na ni boo nekkee jigéen rawatina nga nekk ndaw nekk di liggéeyal Sëñ Tuubaa di nga dégg lu nekk dinañ ni ñoom kat dañoo bëgg ay daayira wala ñoom kat fu ñu leen fekk ñu ngi muuru ñu ngi ŋàbb ay xasaa xasaayit dañuy xëcc yu amul waaye loolu lépp bu ko dégg yow xoolal li nga xam ni moom nga bëgg te muy liggéeyal Sëñ Tuubaa xool li nga xam ni moom nga bëgg muy it yi nga nekk ci jàpp ko te bañ a déglu Sàmba bañ a déglu Demba ndax defe naa ni moom jamono toll na foo xam ni ku xool di nga gis ku déglu di nga dégg waaye képp koo xam ne yaa ngi ci xasaayid yi yow yaay am sa matu bopp ba li nga xam ne si moom nga bëgg nga jàpp ko te góorgóorlu ci bu baax a baax ndaxte amul lenn lu baax loo xam ne yomb na fii lépp lu fi baax rek boo ko jeexee ba ci biir dafa jafe ndax Sëñ Tuubaa yi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal avant muy am li nga xam ne moom la am dafa sonnoon wax na ko na baxtukum maa am ala kadil badaa xam la an araari dan mu abbadaa muy dafa daj ay coono yu coono yu métti laataa muy am ngërëm lu sax kon ndegam moom bi nga xam ni moom la suñu borom jagleel moom moo sonn doog a am waxuma ak ñun ñi nga xam ni ay nit simple kese lañ kon nañu góor góorgóorlu nañu xam ni lii ñu nekk nii ak jagle la jagle gu ñu sëriñ bi jagleel la ndax sëriñ tuubaa ko du ko jóg rek liggéeyal ko moom mooy tànn ñi nga xam ne ñoo koy liggéeyal sëriñ Touba du ko jóg mu nekk ci sa xol du ko jóg gëm sëriñ Touba wala di sonn ci moom di jóg ngir moom sëriñ Touba moom mooy tànnal boppam ñi nga xam ne ñoom ñoo koy liggéeyal. kon ñun dañuy sant yàlla bi ñu suñu borom defee ay jigéen ñu nekk ay ndaw ba pare mu boole ñoog ay jigéen yu mat yoo xam ne dañuy teg ci yoon di ñu éduquer di ñu orienter di ñu xamal sëñ bi di ñu xamal xasaa it di ñu jàngal lu baree baree bari loo xam ne si xamuñu ko woon kon ñu ngi leen di sant ci loolu di ki sant suñu borom ñu xam ne liggéeyal sëñ Tuubaa moom day am woote waaye du am xaare buñ nee ñëw leen rek ñaga ca képp ku ñëw fekkuñu ca képp koo xam ne ñëwagun tam tamit ñu ngi lay ñaan suñu borom ëlbati la ba indiwaat na ci suñu biir ñu ànd di liggéey liggéey bi nga xam ni mooy di liggéeyal Serigne Touba ci xasida yi ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi jaajëfal ñëpp wasalliyan ala mi wasallimi di bihi xaajata kulli muslimin